di leen ndokkeel di ànd ak di ziare ñu nga xam ne ñoom lañ àndal ci liggéey bi ñoom it di leen sant bu baax a baax ci leen nu may ndigal ba barab yi ñu am luñ ca doon yeesalaat waaw di gën a jaayantewaat rek di gën a joxaat suñu bopp suñu borom di ko jébbalaat sëñ bi fas yéene joxe ruu gi ci lépp lu nu am lu nu mën lu nu xam lu nu xelaat ci bés bi ak dëkk bi ak ci jumaa ji luñ ci mën rek te yàlla rek tax ñu fas yéene ko ak ñu ko àndal bokk liggéey bi kon nag muy noonu liggéey nañ ko waaye bëgg nañ lu ko gën a yaatalaat gën a yaatal te lu nu mën lu tàmbalee dërëm ba milliard fas yéene nañ ko ci incha allah taala am nu nag mënunu ki am ki mën dañ koy ñaan rek mu def ko sunuy loxo te bañ ko def sunu xol ndax su ko defee sunu xol duñ ko joxe su ko defee sunuy loxo danañ ko joxe waaw te sëriñ bi la yaakaar fii ak fu ñu jëm te ko yaakaar nag doo am junni di ko jox dërëm te jumaa ji ak dëkkam bi la waxoon kon nag fa yéene nañ ko sëñ bi nag du kii eh, ganam yi ñu fi ñëw ñëpp rek. ki eh, barab yeeg yëpp rek ñun ñoo war a taxaw ci lépp rek yàqu jërëjëf ñu ngi jéglu baax wax dañoo mënta wax incha allah jërëjëf bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina moolana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimi wa mawala wa kullu man qadamani aw zaara fa najjihi waxfir lahu aw zaara asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ci turu daairatu muqaddamatul xidma di yëkkati nuyu bi nag di ko teg ci loxol Cheikh ahmadu Bamba Fall mii ak ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi yëpp kàddu yi nag yi njëkk kàddu yi cant lay doon kàddu yi ngërëm lay doon ndax dafa am lu yàq woon ci morgue bii nga xam ne moo nekk ci armeel yu njëkk yi di Tuubaa di xusnul maab te mooy installation ndox mi ba mu manqué woon ndox ngir teew amoon ay jafe-jafe ñu bari sax jàppoon nañ ne xëy na beneen yeneen yàqu-yàqu la su fekkonte ne du liggéey bi bu xereñ gi ci def ak coono yi mu ci jànkonteel loola mënees na ko bañ a xam ba àggoon ci ñu wutul ko sax ay reservoir yoo xam ne ay mën a jox ndox réseau bi nga xam ne moom la installé woon ci biir yëpp waaye biñ ko defee bañ ko nattee ñu gis ne Euh, loolu it mi ngi manqué waat ndox kon mu defaroon ba noppi ba jàpp ne baax na waaye mu amaat jafe-jafe waaye taxul mu bàyyi dafa daal di jaaju daal di yeesalaat installation yi nga xam ne moo fa nekkoon yëpp branché waat ko beneen branchement bu bees gas ko wutal ko tiwo yu baax installé waat lépp ba ca wanag ya bàyyi wut fenn wutal ko ay pompe yoo xam ne itam dana ko man di pompe ba mu mën a àgg fa mu war a fépp bi loolu amee ba noppi itam taxul mu seppaat ci loxoom waaye dafa continué waat xool lan moo indi woon jafe-jafe bu njëkk ba ba gis ko taxaw nag ci ngir saafara ko kon muy koo xam ne manees naa rafetlu lool fam pastéefam rafetlu lool itam yitteem te xam ne lii nga xam ne moom la sëriñ bi doon liggéeyloo ndax liñ ngëm mooy diggante jumaa ji ak armeel yi moom kenn ku fi liggéey ku dut sëriñ bi moo la liggéeyloo amut sëriñ bi nag du liggéeyloo comme nar dafay waxtu nag dañ koy wax am na pay te day fay mooy tànn nag ka koy liggéeyal kon alhamdulilah bala sëriñ bi tànnee waaye yow nga am pasteefu matériel lam la tànn yow ak ñi nga antaloon kon ci turu Muxaddamatul Xidma ñi ngi lay sant bu baax di la bu baax di soññ bu baax te di la ñaanal it bu baax nga daje ci ngërëmul sëriñ Tuubaa ginnaaw loolu nag mu waxaat ne moom doyalul ci liggéeyal sëriñ Tuubaa bu sañoon dañ koy dolli dolli googee nag fekkoon na fa ay liggéey yu waroon a am yoo xam ne tàmbali nañ ko ba sax xëy na am na ñoo xam ne doon nañ dox ngir jëm ci ngir war ko liggéey waaye ginnaaw moom tàmbali na foofu ba noppi te euh, soobu na ca te am na ci yéen ju toll noonu pas-pas bu toll noonu ñu ñaan ñooña ñu bàyyi ko mu mu continuer liggéey boobee liggéey boobu nag mi ngi ci loxoom xëy na nag liggéey bu xaw a euh, rëy la waaye dara nag rëyul ci Sëñ Tuubaa dara rëyul ci Sëñ Tuubaa te mooy fi nga xam ne fi la ñuy waajalee way dawlu yi ñu yeesalaat ko ba mu gën a méngoo ak jamono dugg dugg fi ñuy dugguwaay yi ak génnuwaay yi ak euh, mbañ mbañ gàcce yi nga xam ne ñoo dox ci diggante euh, taabal yi yooyu yëpp ni nga xam ne ni lañ defaree ndox mi ba ndox mi delluwaat fa mu nekkoon ñu defarawaat ko barab yooyu ba mu mel na meloon ak ya aju yëpp nag ci yu mu war a def xëy na su laajee moom mu dem ba war ko détaillé du ñàkk ne dana ko détaillé waaye nun daal xam naan jox nañ ko ndigalul mu taxawu loola euh, xëy na di jéggalu nag bu baax ci ñi nga xam ne waajoon nañu ngir def ko ba xëy na doxoon ci ay jéego ba ñen nattoon ko ñenn ñi defoon ko yenn waaye nag ginnaaw moom ñëw na ba xas ba sóobu ci liggéey ba noppi te laaj ko duñu man lu may jox jox ko ko kon nag sëñ Cheikh Ahmadou Bamba ñu tur wi rek dafa doy ak cant yàlla ndax loo xam ne liggéey bi sëñ Tuubaa la ñu ne ku ko liggéey ñu ne Cheikh Cheikhul Khadim moo ko liggéeyaat di aw turandom loolu itam sant yàlla bu baax a baax a baax ñu ngi lay ñaanal nag su sa turandoo kattanal la yaag ñi ngi ko seqal ànd ak ñoom liggéey bi yëpp waaye yaag képp ku la ci jàppale itam nag di soññi nag bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yëpp euh, ñu ñu ñu ñu jàppale la ci liggéey bi ndax ba mu mën a sotti ni nga xam ne noonu lañ ko bëggee ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.